Eh, dañuy dem ci chronique du jour ànd ceeg eh, Moustapha Diop eh, ginaaw loolu Cheikh Tidiane Gomis si ñëw ci chronique sport Moustapha Diop ñu ngi lay ziar naan la jumaam barak damaa rus rek waaye kon. <laughs> Fatou maa ngi lay nuyu lu bëree bëri di ziar bu baax ma dem ba Cheikh Diagne ak euh, Mame Khady di nuyu également tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora ñi nga xam ne euh, ñoo ñuy seetaan ajjuma bu jot euh, ci waxtu wi lay. Mhm. voilà ñu war a tàmbali ak actualité bi. Mhm. Moustapha wax ci libération Bougane Gueye Dany Cheikh Yérim Seck Kader Dia ban lecture nga def ci mbir moom. enfin man de je pense que lu mel noonu soo ko soo ko déggee ñoo xam ne yoon daf leen woowoon euh, teg leen loxo. Mm-hmm. nga dégg ñu ne libéré nañ leen la première chose d'abord mooy certainement soulagement la pour ñoom. Mm-hmm. et soulagement la également pour ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ay proche mm-hmm. mais au-delà de ça forcément da ngay def ay lecture par rapport à ce qui s'est ak ce qui se passait. ci weer yee ñu génn sa yàggul sa date pas du siècle dernier c'était il juste six mois. Mm-hmm. Euh, Fatou li nga miinoon. mooy Sénégal képp ku ñu fi daan woo fii. Mm-hmm. nga dem commissariat say mbokk ña ngay préparer pour indi la añ rëbës. Mm-hmm. c'était des mandats de dépôt systématiques. Euh, daanaka ñi nga xam ne ñoo fi mas a dem commissariat euh, ñibbi seen kër man mii ci laa bokk. mais c'est très rare très très rare durant le règne de Macky Sall. képp ku ñu fi mas a woo ñi ci ëpp bokk. ñu fi mas sa woo ñu wuy ji yoon ñibbiwaatuñu seen kër. da ngay wàññi ci sa ci sa euh, baaraami loxo ne diw de woo nañ ko ñibbi diw de woo nañ ko mu ñibbi. donc cette fois-ci bu fekkee ne am na ñu ñu woo ci wàllu euh, yoon. ñu wax mbaa ñu def. ñu entendre leen placer leen garde à vue déférer leen devant le procureur procureur déglu leen ba pare libérer leen ne leen ñibbi leen. ba pare classer le dossier sans suite il faut ñu am honnêteté reconnaître que il y a quelque chose qui a changé. c'est-à-dire que man pour man loolu mooy la la première chose à beneen bi. te loolu ñi ñu ñu jàppoon ñoom ñoo ko waxal démb je crois que liir naa ko tey ci benn journal ñu ne Bougane attaque Sonko et salue l'indépendance de la justice. Mmh. l'indépendance de la justice. je l'ai lu ce matin ci journaux dégg naa également ku mel ne Kader Dia bi mu génnee démb euh, ci bureau procureur li mu wax mooy je fais confiance à la justice de mon pays. faatu il y a semaines ci ginnaaw wala quelques mois ci ginnaaw. lan lañ doon wax dañu am une justice aux ordres. justice boo xam ne da leen di def ñuy def. la même mise de ci laa jëm combien de fois nga gis fii ay nit ñëw fii ci suñu plateau yi ñoo xam dañ leen tëjoon ñu génn ñu wax la man de bañ ma jàppee ba yóbbu ma euh, le juge dama jàkkaarloog moom mu ne ma aw dara lu ma lay toppee mais dañ ne ma naa la téye. y en a beaucoup yoo xam ne dañ naan la clairement kii ils n'ont rien contre lui mais dañ koo téye am na ñoo xam ne du temps de Macky Sall dañ leen a téye ba pare doog wuti lu ñu leen toppee am na ci yu bëree bëree bëri cette fois-ci ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon ils reconnaissent une indépendance de la justice à part de cet instant-là je me dis ce qui s'est passé ces 48 dernières heures man dama jàpp ne victoire Euh, Ousmane Sonko la non victoire Bassirou Diomaye Faye la c'est lui le président de la République ak Ousmane Sonko ci boppam mhm. pourquoi parce que yaa ko wax léegi Fatou bu njëkk li ñu daan wax mooy l'exécutif dafa am une mainmise sur le judiciaire mhm. lu ñu def ñu ne parce que politique yi ñoo ko bëggee nii mhm. cette fois si les gens vous disent le procureur moo jël responsabilité am ne bàyyi na leen ça veut dire que ce procureur là recevoirul ay ordre su ma ko mënee déggee noonu pourquoi parce le pouvoir politique ma dem ba mën na confirmer li may wax. souvent bu dee poser un acte ba mu neex ko mu reculer lan moo koy reculer loo. dañ naan la une pression. mën na nekk une pression de la rue. bi ñu fi jàppee gaañ yi ban pression nga fi dégg naa la rue. li li woykat ba da wax bal tàkkul si jugul déggoo fi lacrymogène bu tàkk déggoo fi alkaati bu jàpp kenn déggoo fi je sais pas moi euh, pneu yu ñu taal il ne s'est absolument rien passé da nga ñëw fii xëy si normalement def sa liggéey une journée normale. comme ni nga koy defee tous les jours wala déet. bien soo jëlee la pression euh, des euh, de la de politiques de la société civile ak yi demee noonu lan nga ci dégg à part un communiqué de la CAP muy la euh, coordination des associations de la presse un communiqué de Reporters sans frontières déggoo leneen mm-hmm. yeneen li nga dégg c'est des c'est des communiqués des partis <laughs> naturellement boo jàppee quelqu'un boo xam ne dafa bokk une coalition coalition bi dana def communiqué pour soutenir ko ça se comprend. Mm-hmm. beneen bi nga dégg un la coalition bi nga xam ne Macky Sall moo ko jiite. Mm-hmm. te ñooñu bu ñu dee wax ci wàllu liberté d'expression. Mm-hmm. wàllu jàpp nit ak tëj nit ñoom dañoo war a gaskaam bu dugg ci tëju bañ pare ñu génnaat. vraiment parce que ñoom euh, lu fi waay kenn mënul defati. lu ëpp ñoom li ñu fi def dans ce domaine là. Macky Sall ak i mbokkam donc li ngay li ma bëgg a wax foofu mooy le pouvoir politique finalement subirul benn pendant ces 48 dernières heures amul benn pression boo xam ne mën nga ne euh, peut-être la communauté internationale ñoom ñoo ko teg le pouvoir y en a pas mhm. malgré tout ñii ils sont libres de rentrer chez eux. ba pare ñu ne le dossier est classé sans suite. mais loolu kay on doit reconnaître. waaw ouais, saluer nañ impartialité juste euh, justice bi ci biir. mais am ñu soulever quand comme nee euh, accusation yi ñu leen jox def. ci accusation yoo xamante ne jàpp nañ la daal teguwul yoon. non xam nga euh, Fatou xam nga lan mooy euh, euh, accusation il faut ñu comprendre mbir mi nan lay nan lay doxee. man nag dama cee laajte nag avant may ñëw. waaw cest à que bu njëkk da nga daan gis un ministre de l'intérieur wala bu ko neex toog di seetaan Walfadjri. gis Cheikh Tidiane Gomis mu woo def dàng mu jël téléphone am woo procureur wala keneen ne nañ ko topp gars yi dem jëli téye. Mhm. xam nañ ci lu baree baree baree bare mhm. defe naa même je lu ci Seneweb bi euh, hier avant dañ ne la. dafa am ay policiers yoo xam ne ñoo nekk division spéciale de la cybersécurité ñoom ñoo toog. Pape Sané mas na nettali fii procédure bi comme ni muy demee dañuy toog yor ay ecran di xool télévision yi. di xool réseaux sociaux yi. di xool sa chaîne euh, TikTok xaw ma nu mu tudd. Mm-hmm. di xool page Facebook Mame Khady. Mm-hmm. di xool YouTube euh, Mademba di di xool lépp ce qui se mm-hmm. ñooñu bu ñu gisee ne Cheikh Tidiane Gomis mi lii muy wax nii. tegginuwul ay topp mën na ci am. mën nañ demande au procureur ne ko on a vu telle chose est-ce qu'on peut convoquer. Mm-hmm. le nañ ko convoquer. noonu lay gars yi convoqué entendre alkaati bu entendre ba pare. Mm-hmm. sur la base de li nga ko wax li mu la laaj ak li nga li ko tontu il dit je te mets en garde à vue en nga gisee ak le procureur parce que alkaati bi moom mooy décidé. soo demee gis le procureur procureur déglu la. moom mooy décidé te dafa am lu am solo lu ma gis euh, Pape euh, Moussa Sow bind ko barki et ça me important. Mm-hmm. te loolu pour ñun journaliste dañ ko war a xam daf ne. Mm-hmm. dañuy wax très souvent que ne le procureur est le maître des poursuites. Mm-hmm. mu ne le procureur est le maître de l' opportunité des poursuites. opportunité des poursuites mooy. jar na ko wala jaru ko. Fatou yow mën nga nekk fii ngay liggéey. tu fais quelque chose. Pierre Edouard Faye te convoque ne la pourquoi nga def nangam ak nangam. nga expliqué. mu ne la non du ma sanctionné grawul c' est pas parce que faute woo de. Mhm. c' est parce que dafa jugé ne amul opportun c' est pas opportun mu lay sanctionné est que comprendre nga bu baax donc le procureur il reçoit ces gens là dans son bureau laaj leen ñu tontu ko après il peut dire ces gens là def nañ. parce que toog nañ wax loo xam ne dama mën na ko jàpp division de fausses nouvelles toog nañ diffamer ay nit malgré tout il dit c' est pas opportun de les poursuivre. loolu mooy wax loolu la ñuy wax maître de l'opportunité des poursuites moom mooy seet jar na ko wala jaru ko et ce qui s'est passé c'est que le procureur lui-même il décide que ni de façon jaru ko et loolu procureur wax bari na ay sénégal yu ko avant moom y a beaucoup de Sénégalais qui pensaient bon ñi am na lu ñu def uh-huh. mais jaru topp quoi dañ ah, leen bàyyi rek uh-huh. voilà d'accord ban leçon mën a tirer ci ci mbir mi moi je pense que euh, bi ci bi ñu ci war a njëkk a tirer uh-huh. euh, et là euh, ñi nga xam ne ñoo nee na ñoom ay opposants lañ décidé ne ñoom lii pouvoir bii di def d' accord ci ànd dañuy opposé wu ak ñoom je pense que ñoom war nañu retenir une première leçon mooy loolu Idrissa Seck waxoon Ousmane Sonko mooy danaan coppet yóbbu te dara du xew. xam nga waxoon na ko fii muy muy reeloo ñu bëri coppet yóbbu dara du xew mm. mais cette fois ci alkaati yi dem nañ ne jël ay nit yóbbu est-ce que dara xew na dara xewul mm-hmm. man pour man les hommes politiques doivent se rendre compte d'une chose mm-hmm. mooy sénégalais yi c'est pas parce que il un moment que Ousmane Sonko dañ ko doon génnal di ko manifester bañ ko ko jàpp mm. que ni les continuer képp koo xam dana la jàpp rek nit ñi génn taali pëna manifester ci mbedd yi je crois qu'il faut retenir la leçon de ce qui s'est malgré wax ji li muy bari bari bari bari Bougane Gueye surtout parce que c'est lui l'homme politique euh, parmi les le trois li wax ji di bari bari malgré toutes ces déclarations et tout bi ñu ko jàppee affaire bi ñu ko woowee mu dem di wuy ji il ne s'est absolument rien passé fanaan na commissariat génn ñu bàyyi ko mu ñibbi këram il ne s'est absolument rien passé nit ñi reer dañu ba suur dem tëddi loolu dafa am solo pour un homme politique nga comprendre le contexte et l' opportunité bi ma doon wax ça pour le procureur l' opportunité des hommes politiques d' agir à certains moments. beneen bi mooy. Euh, Fatou. la là ce n' est pas seulement les hommes politiques c' pour nous tous su ma nee nous tous mooy ñun ñëpp ñi nga xam ne dañoo am yàlla dafa ñoo nattoo. ñu am accès à la parole publique parce que je pense que nattu la toog di wax ci micro. Mhm. ñu lay déglu je pense que nattu la. du du chance. Mhm. man je que on que ni bu ñu bëggee un débat mhm. ku bëgg a opposé wu opposé wu ku bëgg a critiquer critiquer ku d'accord la d'accorduma il faut que ñu bannir un certain langage de nos propos de tous les jours politique gu Sénégal gis nga époque gu époque gu gatsa gatsa ak Macky Sall ak Ousmane loolu dafa am lu ko juróon et mm. contexte boobu dafa changé complètement les Sénégalais léegi dañuy xaar nit ñi ci un débat euh, je dirais même pas technique mais un débat plus serein plus plus plus bu bu gën a am njëriñ euh, euh, coowal politique léegi nekkul Cheikh Tidiane tapette la Cheikh Tidiane mbuqat la man guerrier la je ne suis pas un peureux nangam ak nangam. Euh, loolu da wax les gens ils ont envie de rigoler parce que lan moo lan la ñuy tiit lan la ñuy ragal lan yaa rien qui se passe y a une justice qui fonctionne euh, voilà donc. pour man le discours. Mhm. ce n'est plus un discours de dire. mais mosu ñoo modéré langage tamit ci wàllu politique parce que temps l'ancien président Abdoulaye Wade dañu mhm. doon wax ne góor gi dee na suli leen ko loolu lan moo ko gën a grave tamit. oui mais mais la mort de quelqu'un sauf que sauf que temps mhm. leen ko et c'est vrai de rappeler ça. mais mais ils y mettaient un peu un ton d'humour c'est-à-dire que avec Wade. Wade c'était c'était démocrate par excellence. Wade moom bokkut ak suñu wadd da nga daan gis moom ak Abdou Diouf d'ailleurs da daan am accrochage yu graaw bul fàtte ne on a tué un juge constitutionnel fii ci Sénégal te politique moo ko waral. ay policiers rey nañ leen fii ci centenaire politique moo ko waral donc la violence verbale la violence politique yàgg na ci Sénégal euh, Ousmane Sonko ak euh, Macky Sall mais fan lañu mujjee affaire gatsa gatsa lañ fi doon wax. mais loolu ça fait partie de ce qu'on appelle la violence verbale mais dama ne la yooyu yëpp ay contexte moo ko expliqué woon ay contexte moo ko justifié woon il faut que pour man peut-être je me mm. mais pour man il faut que la classe politique comprendre que contexte bi nga xam ne moo ñu yóbbu moo demoon parce que quand le PASTEF est né en 2014 mm-hmm. est-ce que mas ngaa dégg un mot gatsa gatsa génn ci gémmiñu Ousmane Sonko mm. non. non il était dans des ay nu ngi ko tudde woon solution ay pétrole gaz yooyu moo doon discours am mais quand l'affaire Adji Sarr a éclaté mu xam ne moom gars yi def nañ ko comme nag bu ñu yóbbu bétoir takk nañ ko ba dëgër dañu yóbbu euh, faati ko mais ci la commencé nag. Euh, Euh, appeler à la résistance le discours jóge ci ay propositions un discours constructif pour devenir un discours un discours destructeur mais ce n'est pas parce que c'était valable sous Ousmane Sonko Macky Sall que ni les hommes politiques doivent continuer à dire ça Fatou bu ñu ne laa tey lan moo war a walal la violence verbale fi ñu contexte ñu toll nii lan moo ko expliqué ah Sénégal euh, gars yi manifesté wuñ fii ñu leen di violenté jàpp ñu fi ay leader politique di leen tëj di leen xañ ay réunion mais il fut un temps le le le PRP de Déthié Fall hmm. mais mas naa ko wax ne koy yow sa sa kii bi ni ñu koy waxee sax sa siège parti bi hmm. gendarmerie ñoo war a fay kii bi location bi parce que gendarmerie ñoo fa mujjoon nekk hmm. donc soo tekkee ci réew moo xam ne les partis politiques la Yewwi Askan Wi à l'époque mënuñu réunion parce que dañu tëj seen permanence suñu bëggee dajee gendarmerie ñëw tas ko mais loolu day day favoriser la violence politique mais léegi bu ñu nekkee ci beneen contexte boo xam ne les gens ils libre libres de faire non seulement leur réunion mais de faire même des des des des conférences de presse en direct et des live ñëpp di seetaan nga toog na premier ministre waxul dëgg di ko wax yeneen moo yoo xam ne moo gën a garaaw sax waxul dëgg et rien ne se passe ça veut dire que nii voilà jarul jarul cette cette cette violence verbale mm-hmm. bi nga xam ne peut-être ñu jeexal ci loolu moom laa jàpp ne moom la le pouvoir lui-même doit retenir de cette affaire là la leçon à tirer de cette affaire Fatou mooy mhm. gis nga en Afrique un nouveau pouvoir très souvent dafay fragile dafay fragile mhm. Mhm. surtout un nouveau pouvoir boo xam ne ñi ko incarné euh, ñu nekk sax ministre waxuma laa nag di dekk président de la République wala premier ministre ba pare mu nekk un nouveau pouvoir boo xam ne dañu ñëw wax ne dañuy woote rupture rupture au niveau national mais rupture également dans nos relations diplomatiques ñu ne par exemple ni nga xamee ne noonu la ñu réew mu mel ne France doon noote dootuñu ko nangu il faut ñuy traiter d'égal à égal maa ngi lire ñu ne y a un sommet de la Paris pour la première fois je crois depuis 33 ans Bassirou Diomaye Faye nee na demul mm-hmm. donc loolu forcément du neex une puissance comme la France dafa am benn bët boo xam ne moom la ñu xoolee Sénégal te faatu mm-hmm. pays africain yu bëree bëree bëri li ko déstabiliser c'est pas venu de l'extérieur c'est venu des de leur propre fils parce que l'époque où euh, les occidentaux dañu appuyé wu sur des chaînes comme BBC sur des chaînes comme France 24 RFI et tout pour di pour di joxe yenn information yi bay dem di yëngal ay pouvoir époque boobu africains yi dañ ko dépassé les africains léegi léegi euh, RFI keneen la ñemale faale leen France 24 gi nii ak yeneen ak yeneen boo demee Burkina Faso gi gars yi dañu koy tëj faale wuñu leen léegi ce qui se passe mooy lan mooy les pouvoirs euh, ci yu bari doole yooyu am ay soxla am ay intérêt suñu réew yi et c'est naturel ñu défendre seen intérêt souvent dañuy jaar ci des hommes de médias dañuy jaar ci des hommes politiques dañuy jaar ci des hommes d'affaires ces gens là un pouvoir bu bees di toog installé wu da nga leen di war di surveiller parce que parfois tu entends des propos dans nos médias yoo xam ne doo xam yow lan moo koy justifier et loolu il faut pour man il faut faire attention à ça man daje naa ak des journalistes euh, burkinabé mhm. euh, en Allemagne wow. ça fait juste ay euh, je crois deux ou trois mois mhm. mais bu ñu lay nettali le le pouvoir bi mu installé wu le pouvoir militaire bi mu installé wu au Burkina. Mhm. mais y' a de de de médias yoo xam dañu considérer que ni c' est des alliés de la France par exemple. et que les gens ont commencé à faire ba des des des des foofu yooyu je dis pas que looloo xew Sénégal. Mhm. mais je simplement qu'il faut faire attention avec ça parce que. bi Ablaye Wade di jeexal son règne. quand la France a commencé à recevoir certaines organisations fii ay mouvement de la société civile. ñu dem Quai d'Orsay France nga xam ne fa la le siège du ministère de la France foofu la nekk di recevoir ñenn ñoo xam ne ñoom laay gis ci télé yi ñuy wax mais ñu bari ci lañ ci waxee woon ne Abdoulaye Wade son régime est fini parce que la France a commencé à lui tourner le le man am naa un ami qui est Belgique. France la doon la dëkkoon moment boobu. benn jour daf ma woo mu ne ma Moustapha j'ai vu je veux pas bëgguma tooñ mais maintenant c'est tout léegi ay tur. j'ai diw ak diw ak diw ñu recevoir leen au Quai d'Orsay en France. sa veut dire que ne ces gens là très tôt da nga leen dégg ñu dugg dans un combat contre Ablaye Wade. Mm. je dis pas que c'est ce qui se passe actuellement. Mm-hmm. mais je dis simplement qu'il faut faire attention. gis nañ li am euh, souvent dañ ko doon gis ci fin de règne. Mm-hmm. mais ñoo xamante ne dafa guñ un an ñu tàmbale na mën nañoo wax euh, singari ou bien di leen di dénoncer partout. Mm-hmm. Euh, actuellement est-ce que bu fekkee ne gis nañ li di pouvoir bi mënul tomber ci piège yi nga xamante ne ñoom ñooy opposants yi. Fatou loolu ñu daan tuddee l'ère de la victimisation. dama jàpp ne sénégalais yi ñu ngi commencé di di tëj page boobu xam nga mooy lan. Ah. mooy dañ doon wax ne sénégalais yi kun jàpp. ñu ànd ak yow parce que sénégalais bëggul injustice c'est vrai mhm. sénégalais bëggul injustice mhm. mais mais j'ai l'impression en écoutant les sénégalais seen ay réaction depuis quelques jours que ni ñoom seen bopp xam nañ finalement lan mooy injustice lan moo dul injustice lan mooy jaay nit doole tëj ko kaso ak lan moo dul jaay nit doole tëj ko kaso xoolal euh, bi ñu convoqué Bougane Gueye Dany su fekkoon ne par exemple les sénégalais dañu jàpp ne kii dañ koo teg injustice da nga dégg leur réaction hmm. da nga dégg leur réaction mais les sénégalais eux-mêmes ils se disent quelque part que ni mais mënuñu su Ablaye Wade ku ñu fi jàpp ñu ne dañ ko teg injustice. sous Macky Sall la même chose ñu bëgg continuer di vivre tout temps ça. Sénégalais yi juguñ mais société civile bi ak yenn mouvement ah, aussi de société civile tu parles. Ah, oh, bu dee CAP génn na bu dee. société civile non mais CAP CAP c'est normal parce que mais c'est très bien. Mm -hmm. et le mot de Bougane Gueye euh, moo fi waxoon entre les je crois avant la présidentielle. Euh, et qu'il faut faire la différence la société civile et la société civile. il l'avait dit. Fatou Sénégal wala Afrique. Mm. dafa bari ñu tudd seen bopp ay société civile. Mm. ils reçoivent des financements. ils organisent des activités te yow xamoo fu ñuy jëlee financement man xaw ma ko. Mm. c'est des gens qui sont tout le temps entre deux avions. ils voyagent partout. partout ils vont en Suisse ils vont à Paris ils vont au Washington fu la neex la ñuy dem te mënoo leen wax ne mënuñu la wax ne lii mooy seen liggéey. ces gens là bi Macky Sall di jàpp euh, journalistes yii di tëj est-ce déggoon nga des réactions de ce wala boog boo ci génnee Alioune Tine à l'époque mhm. Alioune mhm. à l'époque oh. ak Seydi Gassama ñu ci bari ci ñoom ñu ngi woon seeni business hmm. mais tey ni nga ko waxee six mois après l'arrivée d'un nouveau pouvoir mais je me dis quelque part lan moo fi war a jar tout ce tintamarre là parce que c'est tellement facile d'observer un pouvoir nga gis ne ñii li ñuy def baaxul nga dénoncé ko et les sénégalais eux-mêmes se rendront compte que ni ñii li ñu nekk du dëkk dafa am dama koy rappeler lu bari dafa benn journaliste bi wax ne ce demande à la presse c'est de mettre la lumière et le peuple choisit son chemin les sénégalais ils n'ont pas besoin qu'on leur dise faites ceci ou faites cela ils ont juste besoin qu'on leur lii moo xew seen réew li ci des seen choix lay doon parce que il faut respecter euh, ce choix de sénégale sénégalais là ñoom am nañ droit xool ne lii doy na leen wala doyu leen mais su fekkee ne man dama nekk parce que je suis journaliste je dois leur dire lii la ñu war a def wala la ñu war a def du sotti je dénonce wala boog j'ai dénoncé du temps de Wade journalistes yi ñu fi doon jàpp di yóbbu di yóbbu di tëj di tout de la même manière je continue à croire que ni dans un pays normal mm. waruñu jàpp nit ndax ay opinion que mu nekk sous Diomaye Faye mu nekk sous Cheikh Tidiane Gomis laa ci yemale mais Fatou. dañ teer différence entre opinion ak saagante. waaw. su ma toogee fii di saaga Cheikh Tidiane Gomis du opinion. Mhm. wax lu bon la. su ma toogee fii di la sosal du opinion. Mhm. ay kàcc la. te loolu nag lu waa moo ko punir du man maa ko punir. Mhm. voilà. voilà donc waaw waaw non non non ah, non non c' est que c' est que c' est que man euh, euh, lan laa bëgg a laajte Moustapha parce que xam nga euh, d'ailleurs sax wax nga ko. xam nga sénégalais. Séné ñun ñun ñun ñun sénégalais. dégg nga ñun ñoo ñun kii maanaam gis nga ñoo nekk yoo ñun ñoo nekk ay nit yoo xam ne ñun dañu gaaw yërëm nit. waaw. ñun ça c'est waa voilà ça c'est sénégalais gaaw gi. nga tey jii émotif quoi. voilà justement nga tey jii boo gisee peut ñu naan Demba Ramata kii mais tey jii boo ko jëlee buntu xataal ko jël ko tëj ko di koy kii noonu da gis da ngay gis yow mii ñu faraloon yow kenn doon la faral moom la ñuy faral. xam nga booy gis xoolal xoolal xoolal xoolal l'arrivée de au pouvoir de Macky Sall. xoolal is xoolal xoolal bi. Mhm. Euh, moom ak Wade. dégg nga buntu xataal ko ñàkkal ko fayda nangam population bi ànd ak moom. Mhm. même Idriss Seck ah mënoon na am loolu mais Idriss Seck après moo ko yàq. Mhm. man loolu laay wax dama ne est-ce que tey jii pouvoir bi en place mënul tamit maanaam xalaat loolu xam Sénégalais yi ni Sénégalais yi mel bien vrai que euh, kii parce que xam nga gars yi. Sénégal yi ñoom xam nañu jàpp. Mhm. ñoom dañuy jàpp ne rek euh, boo fi jàppoon tey ji comme ñoom buggaan nii nii nii c'est vrai l'indépendance de la justice am na ci. man moom foog ñoom ñoo ko wax. waaw non non xam nga loolu am na waaye ñoom gisuñu ne am na ñoo xam ne ñoom gisuñu ne ay indépendance amul ne ñoom dañuy gis ni xam nga lan pouvoir bi ah ñoom léegi dañ fi nekk léegi ñoom dañuy jàppaate dañuy jàppaate est-ce que ñoom tam mënuñu maanaam loolu bàyyi loolu parce que aujourd'hui il y a des urgences Moustapha. oui il y des urgences les Sénégalais. Euh, gis nga Bougane buy nekk fee di wax ci téléem dina ou di wax fële Sénégal yi taluñu ko xam nga lu ñuy lekk. Cheikh Diallo foofu laa foofu foofu ak yow. mooy réew mi dafa am ay urgence yoo xam ne war nañu tal leneen lu dul nekk di waxanteeg di jàppanteeg yooyu c'est réew mi dafa am ay urgence am yoo xam ne ci la Sénégalais di xaar le nouveau pouvoir je suis parfaitement d'accord ak yow mais man li ma bëgg ñu ñu teg le curseur mooy suñu responsabilité la ñun ñëpp su ñu responsabilité ñun ñëpp mooy se dire quelque part que ni euh, ça sert à rien di waxante lu ñaaw man je refuse de dire oui doon na fi am donc dañuy continuer di ko def c' est pas parce que doon na fi am que dañuy continuer di ko def muy benn ñaareel ma dem ba mi ngi koy wax sànq ci suuf euh, nu sommes un peuple émotif euh, c' est Léopold Senghor qui disait que la raison l' émotion est nègre la raison est hélène loolu moom saaga mënu ko weesu parce que parce que nag voilà mais mais je me dis ce que Cheikh ñun suñu réew mi dañu war a continuer di fonctionner sur l'émotion wala dañu war a continuer di fonctionner sur la raison cest à que la raison tey mooy lan mooy quand on a nommé Ousmane Diagne ministre de la justice les gens du man de les sénégalais wala boog ñëpp ci ñoom ñoo ne ah kii c'est un kii kenn du ko jox ay ordre kii c'est un bon mën na def un bon ministre de la justice parce que a été un bon procureur nekk na fii procureur de la république pouvoir Ablaye waat sant ko mu bañ tëjloo nañ ko fi Alioune Tine mu bañ Alioune Tine garde à vue lañ ko yóbbu dik defeere ko au parquet pour ñu tëj ko mu lànk Ousmane Diagne mii nekk ministre de la justice caat bu yaanaamaar bi doon wax démb sûreté urbaine jàpp na ko tëj ko commissariat central defeere war ko defeere au parquet pour ñu mandat de dépôt ko Ousmane Diagne a refusé c'est lui qui est l'actuel ministre de la justice. ma yokkoon la ci sax bëggoon nañ ko génnaloo Barthélemy Diaz. bëggoon nañ ko libéraloo Barthélemy Diaz dans l'affaire Ndiaga Diouf il a dit non. parce que dafa jàpp ne Barthélemy Diaz euh, lañ ko jiiñ mënul génn yaa ngi dégg kooku lañ jël def ko procureur euh, ministre de la justice mu tànn comme procureur de la République koo xam ne nekkoon na substitut am bi muy nekk parquet muy Ibrahima Ndoye quand on Ibrahima Ndoye du man maa ko wax les Sénégalais eux-mêmes ont dit c'est un bon choix parce que kenn mësu ko dégg ci lu ñàkk fayda il di dit non quand il a fallu dire baaratal état du Sénégal am na lu ko état bëggoon def moom procureur bi dafa lànk ne du ko def l'affaire Médinatoul Salaam bi ñu reyee ñaari taalibe Cheikh Béthio Thioune yooyu procureur bii mooy yoroon dossier bi moom moo jàppoon Cheikh Béthio Thioune ak ay ay taalibeem donc kooku les gens kii kat il va faire son travail tey il commence à faire son travail parmi les premiers actes yi mu posé mooy jàpp na euh, wala boo jàpp na wala ay enquêteurs am jàpp na ñetti nit ñu defee rek au mu déglu leen libéré leen mm-hmm. mais loolu la raison bu ñu bu ñu bu ñu bañee fonctionner ci émotion rek fonctionner ci raison mooy se dire que ni ah quelque part que on doit reconnaître que ni même bu fekkee ne la justice n'est pas totalement indépendance indépendante au moins kii il a posé des actes yoo xam ne mën nañ ko ci wóolu. ça c'est vrai te loolu Cheikh Tidiane dafa am mm-hmm. loo xam ne sa relève du domaine de la perception. Mm-hmm. mooy sénégalais dégg-dégg bi ñuy am ak la réalité des faits. Mm-hmm. dégg-dégg bi li koy waral mooy li nga wax nii mooy dañ naan ah kii kat dañ ko jaay doole jàpp ko. ñu koy wax di ko wax di ko wax di ko wax di ko wax ba nit ñi yaakaar ne dëgg la fekk du dëgg te loolu foofu laa euh, bëgg a d'accord ak Fatou un peu mooy piège bi nga xam ne du ma ne le pouvoir mais les gens yi nga xam ne ñoom ñooy wax ne c'est des soutiens du pouvoir ci piège boobu la ñu nekk di daanu mooy ñi nga xam ne ay ay ay militants wu Pastef lañ mhm. wala ñu tuddee seen ay patriotes wala ay sympathisants xam nga mooy lan Cheikh Tidiane mhm. mooy dañuy fekk ça nous arrive ñun ñëpp dañuy da ngay tomber ci benn vidéo boo xam ne Euh, Cheikh Tidiane moo ciy saaga maam Khady Diéry Fall maam Khady def chronique gu une heure de temps wala émission wu une de temps wax li muy wax ba pare benn Cheikh Tidiane Gomis toog këram def benn vidéo ci 3 minutes xaw ma wax ko lu ko neex koo xam ne li muy wax xamu ci dara cette vidéo là mën na nekk ci internet pendant 10 ans 10 personnes duñu ko gis ma demba ba yam ci vidéo bi jël ko envoyé ko maam Khady ne ko dégg li la li la waa ji wax mais ça quoi boo li ma bëgg expliquer mooy boo xoolee les gens de de Pastef tous les gens yi nga xam ne ñoom nga gis ñu naan dañuy dañuy saaga le pouvoir dañuy wax lii dañuy wax laa mais seen vidéo yi ñuy def su amee portée bi muy am nga def ne ñen ñoo ko waral waa Pastef ñoom ñoo koy jël di ko partager def ko ci YouTube Facebook feneen ak feneen naan dégleen leen li waa ji wax kii dañ ko war a jàpp nangam ak naam mais mon pour pourquoi tu partages ça <laughs> ça sert à parce que à force de partager ça dangay ngay jox nit ñi perception que kii am na popularité fekk amu ko. ko tey dangay gis une vidéo de Moustapha Diop buy wax lu ko neex. nga seetaan ko gis mu am ay cent mille deux cent mille quatre cent mille voix <laughs> quatre cent mille vues je ne sais pas comment est-ce qu'il calcule ça ah, ah, waaw nga naan mais Moustapha moom ces vidéos là vraiment ça fait un buzz Moustapha mii dafa populaire su génnoon fii dem élection léegi Sénégalais yi votel su génnee xoolal dix personnes duñ ko votel xam nga lan la perce euh, euh, la popularité médiatique n'a rien à voir avec une popularité politique qui se mesure ci ay election wala ci xem li xewoon bërki dem nga génn di wuy ji yoon sa ay partisans yépp génn ànd ak yow ñu ne kii kat am na mbooloo mais médias yi. si c'était le cas Youssou Ndour ak code popularité bi mu am je pense que kon. merci merci mais Moustapha aussi ñu bañ a euh, tombe ci sénégalais yi bañ a tombe ci piège wu euh, mm-hmm. wala nguur gi comme ah. lu ñu naan euh, bu ñuy wootee bi mu ngi bën gi bëri mm-hmm. convocation mu ngi gën di bëri pour bés bu ñu demee bay convoqué ñi nga xam ne ñoo sàcc alalu réew mi wala ñoom lañ jàpp ne ñoo ko sàcc mm-hmm. ñu bañ a ñëw di wax ah maam Khady loolu moo intéressant ci wax li ngay wax mooy tey lu procureur jàpp na ay nit. Mhm. wala boog ah, je dis le procureur. Euh, mhm. en tout cas parce que moom moo jàpp parce que du toute façon moom mooy moom mooy patron wu mhm. enquêteurs yi. Euh, jàpp na. ñu indi déféré parquet mu déglu ne libéré naa je classe de dossier sans suite. Mm-hmm. mais kooku su ëllëgee su convoqué ah, su convoqué je ne sais pas moi Pape Samb wala keneen jàpp ko tee ko ne diront pas que non dañ ko mm-hmm. dañ ko ko teeloo mm-hmm. parce justice euh, euh, euh, procureur vraiment il est courageux il est que tey liiral presse bi loolu la ñu wax ah Ibrahima Ndoye c'est sax ñu wax ne Ibrahima Ndoye dafa dafa défier je ne sais pas le pouvoir politique parce que li ñu bëggoon defu ko mais ce même Ibrahima Ndoye là boo lëgee bu jàppee keneen tëj ko maam maam xarit ci wàllu détournement détournement wala leneen les gens ne pourront pas venir dire que Ousmane Sonko moo ko sant voilà ah, moo tax l'acte qu'il a posé hier je me dis qu'il a rendu un grand service à la justice moom le procureur. je pense que avec le ministre de la justice euh, nga xamante réputation bu baax la am li ñuy yaakaar ci euh, salfaañe justice Sénégal du du am. parce que ci acte yi mu def yëpp boo ko xoolee. Mm-hmm. Euh, yaakaar tout le monde a apprécié. dinaa la jox benn exemple pour wala ne bu ñu doon remonter un peu. comme ni mm-hmm. ñoom ma dem ma def di def les analyses politiques là. comparer les faits d'ici et les faits d'il y a <laughs> ministre de la justice. bi mu nekkee procureur de la république. Walf Quotidien gii. ñoo bind ne ñoo bind les boobu Ablaye Wade moo fi nekkoon. des ministres d'Ablaye Wade ñu qualifié leen de voyous de la république. comme voyou comme délinquant de la république. Mm-hmm. Walf Quotidien boobu yaa ngi fi. Mm-hmm. Ousmane Diagne mii nekk parquet. moo demandé woon ñu arrêté la rédaction. gars yi ñëw fi jël si fi 4 cinq xaw ma 6 personnes ëpp nañ ko sax yóbbu dig. Mm-hmm. fa la ñu yàlla ñoom waaw après mu bàyyi leen. Mm-hmm. mais sa sa même kooku loolu doon doon bañ à l'époque ñu traité des ministres de la république de voyous. mais kooku defe nga ne dina nekk ministre de la justice ñu taag naan premier ministre day fen président de la république day fen mu toog di seetaan ça n'a sens ça n'a sens moo tax bu ñu dee remonter un peu rek dinañ xam ne dinañu éclairer lu bari ci li nga xam ne moo nekk di xew li nga wax d'accord mhm. faatu ne ko lii du pression moom laa gëm peut-être je me trompe mais li ma gëm mooy le procureur a fait son travail il faudrait que nous Sénégalais nous apprenions à être responsable absolument mm-hmm. responsable mooy xool li ngay wax mm-hmm. xool li ngay def ak xool li ngay bu baax li ngay kii mm-hmm. parce que réew mi ñun ñëpp ko bokk la preuve Mademba euh, soo gisee Euh, euh non Kader c' est dans autre chose parce que Kader dafa am lu mu wax. ñu jàpp ne loolu amul ñu woo ko pour mu expliquer wu. mais soo gisee Cheikh Yérim Seck. Bougane Gueye Dany dañ ne dañoo weddi lu Ousmane Sonko wax moo tax ñu jàpp leen. mais ma dem ba depuis Ousmane Sonko def conférence de presse am boobu ak ministre yooyu mu toogaloon combien de sénégalais ñoo weddi li mu wax des hommes politiques ont dit publiquement que ni gëmuñu li mu wax des journalistes l'ont dit des chroniqueurs l'ont dit kenn inquiété wu leen je prends l' exemple de Abdou Mbow. Mhm. ancien député. Abdou Mbow def na émission wax na lii Ousmane Sonko wax gëm ko kenn woowu ko ci dara. mais c'est parce que Abdou Mbow daf ko wax ci ni ñuy war a waxee ci place publique ni ñu war a waxee ci république am naa droit Fatou Diouf wax dara ma ne lii Fatou wax gëw ma ko man lii laa gëm mais nag du tax ma taxaw naan Fatou day day safaan il y a même une façon de dire c'est vrai c'est comme ah. ni waxee a même une façon de dire merde parce que maa xam nga dëgg di nga ko wax bu ànd ay saaga mm. saaga yi la ñuy jàpp duñu jàpp dëgg et puis dëgg dëgg dafa war a rafet. dafa war a rafet. en tout cas dina jaajëfal rek bu baax Moustapha Diop. <laughs> jërëjëf Fatou. <laughs> dañu ñëw rek. léegi méreetoo ma c'est bon. <laughs> dama dama dama xam ne da ngaa yor say taalibe su ma la kii rek.